jëlal lii taala yaa ngi Cees xoolal lii Cees a ngi na ñëw bëre kaay kaay bëre na ñëw bëre kaay na ñëw na ñëw bëre noo koy kii billaay walaay su ma ko moo xam ne du mën dugg leen dugg leen kii maa ko mën maa ko doole li may liggéey man maay kan maa de gàkkul waaw ma xamul dégg nga Thiès xam nga kii ki nga jàkkaarloo. Babacar kii dégg naa mooy Safi. Safi jàng ngi nii. de xam naa ko. daa lu ma ko bëgg a laaj nag. si combat. ak Boy Niang laaj Babacar. non ama combat Boy Niang Lac de xam na làmb de. nañ dem ma laaj ko. la grand champion. Safi ci loo ne. sant Serigne Touba comme naa la gis. xoolal ba doyul waaw dégg naa dëgg gumba du jommi ndax du gis yaa wax lii maa la wax loolu mu ma neexe jàngal yaar ba mu ko dóob ba léegi daa fekk ababa ababa loo ko joxoon xam na ko loolu ciy dolli loolu waaye sant yàlla rek di ñaan Cees ku sa mag Tony mooy sama mag ah maa a ma sama sens a met Sigi Marley moo yor ngeen mu lu xonq li mooy waaw ak Mina Subu ngay xoox Mina Su ngay la jógee. Sele mi la Su. Sele maa seen léegi muy jaagu mbaat. Sigi moo féete. ngemb xonq la yor Sigi Marley. Mina Su. seen tur yi na ay Mina Su bi Sigi Marley. Mina Su daw na jëli. Mina Su Sigi jàppante nañu. sigi marleeg mi na su waay sigeeg mi na su waay sigi marle mi su gis gis eh, ah, ngay ñamante ca suuf waaw sigi mar la yor ngongol ngemul xonq li moo gàtt jàppante na ak Mina Soudé ba tey rek loxo góor su mar la ca ngemba loxo droite sigi Mina Soudé ca ngemba waaye ndengañ ba sax na loolu daa sori Mina su loolu dafa sori boo bëggee daw taf wala nga daw takk placage du sotti dafa sori da laa ndengeñ ba pare mu ngi koy ñam te suuf de sërxal yu sew a sew yi ee Maniang Soumaré ci Thiès Sidi Diakhaté ci Thiès Diakhaté Kaba Yéri Ali Seck la ko yóbbe ma Waale la ko yóbbe min na soog sigi marle seen combat baa ngi bëgg a yàgg nag bëre leen waaye kenn daan faq faq daan na ko oh! jeex na daa mel ni wala arbit na su daan na sigi marle min na su daan na sigi marle faq daw laal tànk ba daan nañu la jaatu combat caatu caatu mbër a wane ginnaaw caatu lay balla bu daagu ee caatu mbër ak lay balla ñu ngay xeex de Caatu Mbeer lay bal ñu ngay xeex de jël na ko Caatu Mbeer daan na lay moom Caatu Mbeer eh Taala Njaay yaak Lamine filmer leen seen zoom yi Taala yaak Lamine ñaari yaar moo féete à droite kenn ku du feeñ kon kenn du feeñ Lamine nee bu yokkee du feeñ eh ñaari yaar ñaari yaar bu jaxaaw ñaari yaar jël ko ñaari yaar da ngay daanu ñaari yaar mbaa duñ la daan njëtt nañ la bañ na de ñaari yaar lànk de nee ko duma daanu foofu Sadio Bass ñaari yaar lànk kandaare yaa yey lank ñaari yar waaye arbitre waay jàppante ba tar na de waaye yéen a ngi Cees benn dëkk ñaari gaar yor mbër bu ñu yor moytu ma mbër bu ñam avion mbaa mbaa du daa ñam avion rek rek non dem na seet dem na cinquante deux état ñëwaat mbaa daan na état si ñëwaat ay waay ku koy daan na ko daan léegi balaa màgg xanaa daa jël champion d'Afrique. non mérite CEDEAO. xanaa daa jël CEDEAO kon. da ko jël trois fois nekk mérite africain nekk deux fois jël na quatre fois drapeau chef de l'État. kooku mooy Omar Kane rek ñi mënuñu koo daan. doomi Caaroy la. barke yonent bi maa la ko waasal ko ko daan daan ko léegi. doomi mbër la. moo dax bëre mag ñi dara ëpp doole xale yi. jàngil bëre yàgg yàgg des na la ma sañam la ñu wax. waaye loo xam ki la da guerre de booy ñaa. et eh, le penseur waalo ak ki xam ne mooy càppaacoli bu Pikine. ñaar daanu ma ne ko teg ko rek doxloo ko saa bu ngeen jàppal démb démb saa kii mënul lank par calcul. am naa consultant bu mag tey. xanaa xamoon la da ngeen rek am na seen mënuñoo bëriwaat. ndeysaan saa fi nga lan. la da ngeen rek am na seen mënuñoo bëriwaat. non Lamine kii consultant la wala da ngaa yaakaar daa far. Lamine ne da ngaa far. non far ma ndax dàqu ñu ma bëre. teel waay. yàgg naa kii bis naa def naa fa 5 ans. wax nga dëgg Balla Gaye numéro 2 eh ngi Modou Lo daa am lu mu dugg muy roi des arènes eh saafee ngi Eumeu Sène li ko ko waay dóor duñ ko abalaat yet bi Eumeu Sène daa mën revanche ko ko ma fay yomb te Eumeu la booy ñaa bëgg Modou na ko damay delloo buum ca booy booy bëgg eh Eumeu Sène roi des ay boobu ko mbaam moom Modou xarañ loo kenn du ko lijjanti borom 22 borom ma Léopold Sédar Faara Taïba Ndiaye eh doomi Pikine Faara bin na Fall ak Fandène ay laa ilaaha illallaah borom kabrus lay bëreel moom doomi daagu daan doomu kabrus am ba seen kabrus la dëkk fa la yaay kabrus ca Casamance maa lax loolu fa la ndem dëkk waaye ak séréer si maa lax loolu ñu nga ca ginnaawam nee nañu amul doole ak mën a bëre ak fit la ak yor xaalis maa lax loolu koppar lamb tajal ko teeñ bu lamb doon xeet yi ki nunu daanu ko fukki teeñ ak juróom bu lamb doon xeet yi ki nunu daanu walaay bu doon xeet yax ya du daanu ay mi bëri Balla Gaye 22 secondes 22 janvier loolu nu mu demee woon saafi 22 janvier leen bëree Balla Gaye daan ko ñaari jël da ko ñu ko dóor fàq ko bi Yékini def nga rappi ñu bëri waat Yékini dàq ko daw di ko taf ki xabal Balla Gaye wéeru ko xalal ko cey loolu waaye Balla Gaye waaye rëcc na oh loolu baaxoon na de ñaari yar loolu baaxoon na de ñaari yaar combat ba ngay bëgg a yàgg mu naqari de dóor tànk mu bañ déedéet bilaay loolu jeexalul làmb gaa yaa ngay ca ginnaaw waaye walluk teen la wax naa leen ko ba tey loo ay ay boo ñëwee ci pind bi ngay yem doo tàbbi ci teen bi mukk déedéet te lamb man dam saa léwtoo boo léwtoowul doo bëre waaw ndeysaan ndeysaan maa ngi leen di bëggee ñi ñooy waa Thiès Média waa Thiès ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di wax ne Thiès capital di raay benn dëkk ñaari gaar fu waay jëm fa ngay jaar eh, fu waay jëm jaar fa ku fay romb fa laa lay xaar ku fay romb fa lay fa lañ lay xaar Thiès kaay benn dëkk ñaari aéroport ñaari aéroport benn baa nga base benn baa nga base benn baa nga AIBD nga AIBD ca Thiès Thiès ñaari xalif général eh ñaari xalif général benn baa nga Ndiassane benn baa nga Ndiassane benn baa nga Tivaouane benn baa nga Tivaouane tey Thiès Thiès benn jong waay Thiès a neex waay danga ko ci boole benn jongam. ah déet wóorul. li TV Leewtoo 100 pour 100 lamb. Ndeysaan. eh Peter ñi. laa ilaha illallah. ba sotteegul. sotteegul. xeex leen léegi. xeex a ci des xeex leen. xeex leen. xeex leen jël na ko da koy daan oh ñaari yar yan na ko daan ko eh waay ndaa waa bi reporter moom taal jëlee reporter bi waay xoolal waay reporter bi Lamine waay yi reporter a neex reporter bi reporter bi doom jaa daan Lamine eh waay ndaw Samba moo taxit neex na man nu mbaay looloo neex. ci mën a dégg arbitre suuf la ne de taxaam meew ma mbër ya borom ngem lu weex mooy ah. jël na ko jël na ko eh, da koy daan waaye yéen jël na ko di waaye yéen fu mu moom dawal ñu nga ca suuf jeex bëre jeex botti yokk dugal mu bañ waaye xool li ñu defee daanu nga daan nañu la ku daan daan nañu la mbër mi jóge fan la ñu daan. ndufuk lan daan. ndufuk. moo daan mbërëm tuwaawoon maa daan. mbërëm tuwaawoon ma turbo ko daan na. yaa kër gu ne ma taxaw fa defal leen drapeau mais yàlla def na moom muy nit koo xam ni suñu kanam ak suñu ginnaaw lu xew ca koñ ba ma ngi koy dugal loxoom te bëggul nit xam ko kon nag buñ ko bëggee wax waa koñ bi yëpp jëf dañuy jël ki nga xam ne mooy président ASC Jaloore di nit koo xam ne nit ku sociable la di nit koo xam ne nit ku discret la ñu war a def fii tey jox ko ci cër bu mag pour wan ne ko Habib yow yaa représenté tey quartier Randoulène Nord bi yëpp kon nag as biram Sidi Jaxate ngi lay gërëm li ma gën a neex tey jii yaa ngi ànd ak sa njaboot gépp ànd ak samay xarit ànd ak samay dëkkandoo loolu dafa seddu xol as biram di Jaxate ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk sa xéwal yokk sa sutura ci délégation bi nga àndal ànd nga ceeg koo xam ni kenn la ci man nag mooy naa saw naa ma koy gërëmaat di ko santaat bu baax monsieur Théodore Ndione muy directeur école bi nga xam ne mooy auto école bi nga xam ni mooy auto xam ni moom moo yor li nga xam ni mooy prospérité pour tous. tamit laay patron Modou Lo arbitre soufflé na. Zal mooy patron laay patron Modou Lo. arbitre soufflé na Lamine di patron Lamine ak Talla Ndiaye. Babacar sama patron. non man yaay sama patron Lamine. kan kan ay bëre Babacar. building bu Gambia. bëri nañu wër rek. building bu ñoom soq. building moo ah, Amadou sa saison ngong. building ay bëre. meeting bu Bakaaw. may nuyu waa Gambia. ak ki nga xam ne mooy enfant kër Maba kër Baba. enfant kër Baba nu woon ginnaaw. building bu Bakaaw ngeen jàkkaar lool. eh building wala boob Lamine building bu Serekunda la waaye sox ko woon. Serekunda Aline Mbaye Nder a ngi toog Aline Mbaye daa gëj am xaw ma lu ko jot koo daan. ma ne kii Maurice bu Sénégal bi. yaa daan Maurice. waaw Maurice waaw. koy laaj. non gars yi rek ponkal yi ñun jàpp ne ay ponkal la xanaa amuñuy tur. non ñun jàpp ne ñoo ko bëgg parce que. am na waaw mais dara dañuy moytu rek di jël ay ah. waaw. waaw combat est-ce que nooy neex. non gars yi mooy loolu ndaysaan building ngeen jàkkaar lool Serekunda la jóge ca Gambia Serekunda Afa de Kër Baba Afa mi nag daaw bëre na Estade Jaw ma koddu Jaw ma koddu Jaw eh gëdd na ko de waaw Afa foo jëm Afa tee nga taxaw boo xoolee taxawaay bi dafa may xaw a jox mool 1 moon 1 ndaysaan moon 1 champion séeréer ba sama xel day dem ci Mbagnick Ndiaye doomi Robert. moon waaw moom moom moon la moon daa am moon deux am ay Bicol dëkku ki nga xam ne mooy ki nga Antoine Bakhoum ndaysaan Paul Maurice Sobeen oh ndaysaan taw eh, na jël ko taw na jël ko e war na ko ndombo building war na ko ndombo afa kër baba daanu nga mu ngi koy door mu ngi koy door e eh, xalam Serekunda ba mbërëm soq mu wër na ndombo waaye mbërëm soq mi wal bit gang arbitre ne arbitre eh arbitre jël amulam arbitre lu xew Aline Mbaye Nder puusal Aline Mbaye doo arbitre Aline Mbaye arbitre too eh, mbër nga bàyyil arbitre bi Aline Mbaye Nder ah way building daan na ko building daan na ko Afa de Kër Baba building daan na ko. ñu jàkkaarloog man tey ci Thiès. Sall ñu ngi lay ziar. dama lay ziar. dama yaa ngi am sant yàlla. teewaay bi tey Thiès lan moo ko waral. day suñu dëkk. ku ne Thiès na jëndeel ku ne jëndee na Thiès. ñu boole ma si invitation yi làmb ji si jaxate kon damay sant bu ñëw fii. waaw di sant di leen gërëm vraiment. di kontaan si combat vraiment combat neex. di nuyu sa waa Baye exemple moom it tëgg làmb la moom moo njëkk a tëgg sama drapeau fii waaw kon ñu ngi di gërëm moom it di gërëm ñi ma àndal laay Pythagore sa xarit waaw dañu leen gën seega ma ak yow vraiment ngeen taxawal gis seen taxawaay yow vraiment ah si làmb ji ñu leen ñaan yàlla yàlla jàppale leen dem ba nekk ay télévision yu mag waaw te yàlla kattanal leen may leen may leen xéwal gu bari may may ko bëri njëriñ vraiment kontaan nañ si tar lool Ama sooñu woon ginnaaw 10 000 problème ngeen jàkkaar lool Ama soog 10 000 problème dix mille ak Vance lu xewaar bi dix mille problème dix mille problème ak Fass déedéet maa nga ca na Lamine loo ci mën a dégg bëri problème waaye wàll ku ko ki muy bëreel waaw dix mille problème ca na bu fa dëkkee di mbokkam guy gi dix mille ak Fass dix mille problème Fass daw na jël ko dix mille problème laxasu na ko dix mille yëkkati yee waaye yéen dix mi bari na di la ilaha illa waaye yow kii kay un million de problème la million problème waaye Vansu Vansu dañ laa buddi ba biir weex ci Thiès yëkkati ba ca kaw Vansu ba ca kaw ba ca kaw xajji ci suuf asamaan jox mu bañ ñu ne suuf am waaye Vance ñu ngi koy sottim ndox ay waay gàll Ousmane Noël Dieng Ousmane ñu ngi lay ziar. maa lay fay mon frère. maa yaa ngi am jàmm. ñu ngi am jàmm di sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. tey lu waral te lan moo waral teewaay bi Thiès tey fii. waaw dama ñëw teew euh, su dëgg yàlla ku mel ni Siri Diakhaté nga xam ne euh, ñëpp war a jël exemple ci moom Siri jaxate gor la Siri Diakhaté euh, nitu couleur la su nitu démb ak nitu tey wax dëgg yàlla dafa leen xàmmee moo tax ma jël sama déplacement au nom du ministre Diène Farba Sarr ñëw nag wax dëgg yàlla seetaan làmb ji neex ji nga xam ne maa ngi xaar sama deuxième édition drapeau Ousmane Nalal Dieng di gërëm wax dëgg yàlla tout. tout le mouvement MJKDFS et toutes les formes du mouvement MJKDFS di gërëm aussi le ministre Diène Farba Sarr euh, wax dëgg yàlla dina làmb ji neex na ni mu e neex na di ñaan yàlla def fi jàmm ak salaam su ko defee ñëpp mën a si jàmm te ñibbaat si jàmm ak salaam kontaan nañ ci yow trop mon frère jërëjëf mon frère dinaa la invité kaw na ñëw nag dinaa la invité nga ñëw jël ma émission tamit ñëw sama kër. ay jëkk ah parce que moom suñu soppeel daf ñuy seetaan depuis ñu ngi lay bëgg la ziar. maa lay bëgg ba am nga ci am. waaw a baax tey moom damaa bëgg. waaw waaw ndax seen seen fans bu rëy laa chaque jour dama leen déglu leen seetaan kontaan naa seen lool. vraiment te man amateur bu mag laa amateur lamb laa. am nga mbër damaa bëgg lamb waaw man. waaw Balla. Balla Gaye waaw. la <laughs> kii laa moom vraiment amateur la te kontaan naa trop Lamine ak Babacar kenn du yéen yéenay numéro un waaw. <laughs> yaay booy ñu ngi lay bëggee yow a tey nga ànd ak sa doom ñëw fii si Thiès wala boog ci stade Maniang Soumaré ñu tuddee la fii làmb loo tudd noo noo noo yëgee loolu. làmb ji li ma ci gën a neex gis nga moom mi ngay gis comme ni nga ko waxee dafa bëgg làmb muy sama doom ndax mooy denc sama taabu jigéen bi di xale bu baax bëgg làmb gi bëgg làmb moo tax yàlla may ko chance mu ñëw vacances tasante drapeau yaayam kon xam nga ne loolu bëgg gi mu bëgg bëgg du hasard kon nag dama kontaan ci drapeau bi. kontaan ci lutte bi kontaan ci Sidi Diakhaté mi nga xam ne sama càmmiñ moo ma tuddee drapeau bi vraiment mënu ko fay am na maa ngi sant ñëpp kontaan naa bu baax a baax wax dëgg. kontaan nañ ci yow maa gën a kontaan maa ngi leen di remercier yéen di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi mu wax dina da leen di suivre ba États-Unis comme waa dakaar waa Thiès ñëpp seen liggéey rafet na yaa ngeen yàlla na ngeen yokk ba yëg ko. ñu dund ba tëggaat fi drapeau Oumy Sylla ñu tasewaal ak jàmm incha allah merci beaucoup jërëjëf di la gërëm di la sant di gërëm walti Lutte TV di gërëm Leewtoo production suma xarit suma doomu ndey moom ko di leen wax ni vraiment tey jii kontaan naa parce que liggéey bi ngeen di def à travers le Sénégal l' Afrique le monde entier ñëpp gis nañ ko tey seen déplacement jóge Dakar ba fii Thiès dafa toll loo xam ni sori na trop ci man. vraiment tey lamb bi bu amee réussite bi ba toll fii est parce que seen liggéey la kii ma taxawal nii di Khalifa Ababacar Mboup di koo xam ni kenn la ci man ci bis bi def ci lu ne ba pare yore mouvement bi nga xam ne mooy Thiès émergent donc muy koo xam ni dafa nekk nit koo xam ne dafay jàppale président maa ngi wax président daal fi ni ko xalifa mi nañ ko gën a jàppale. parce que ay moyens boppam lay demee te lu mu am mi ngi koy def ci social ci dëkk bi mi ngi faj nit ñi mi ngi jàppale nit ci social xaru tabaski koor gi suukaru koor yi jàng école yi scolarité yëpp mi ngi ciy def dooleem. te lépp lu mu def rek boo waxee mu ni président moo tamati ko di dundal làmb ma wax ko mu ni ma président mënut a tabax arène 32 milliards ba pare te duñ jàppale xale yi pour ñu doon ay champion ba mën cee kon Khalifa vous êtes visionnaire maa ngi lay gërëmaat di la santaat di la ñaanal yàlla journée bi tey bu demee ba taaru ni c'est parce que sa loxo da cee dugg ba mat sëkk di gërëm sa soxna di gërëm njaboot gi nga àndal yëpp di gërëm waa Thiès émergent di la ne tey drapeau bi ñu la jox nii du chance mais mérite la c'est parce que yow liggéey dégg naa sànq sa discours ngay nit koo xam ne nit ku baax nga moo tax tey devant les télévisions devant l' ensemble des sites ñu bëgg nga remettre vingt là depuis ce matin pour m'accompagner pour me soutenir et aussi remercier tous les gens qui sont aujourd'hui derrière moi qui m'ont accompagné au stade je vous remercie je vous remercie et je vous remercie. waaw ñu ngi lay fay Babacar. tur bi nag la. Bisane Dione bu Tivaouane. ñaata combat nga bëri àll. sama quatrième combat. ñaata victoire. trois victoire. na yaa daan koo daan. léegi foo jëm. waaw comme sama morom yi rek dama sama morom yi jël gars yëpp sama morom lañ te am lu ma def si di bëggee waa Tiwaan gépp waaw di leen wax seen doom a ngi nii mbisaan xam nga yu baax ay ñoom Alan Séréer xam nga coach Demba Diallo Mara ziar naa gars Paa Fall. Sidi Diakhaté innové na Diakhaté Kaba la grand Thiès waa Madoum Diouf. madame eh Talla Ndiaye Madoune Diouf Lamine. naa déglu. sama xel dem na ci premier jàkkaarloo Modou Lo eh! lii Gris Bordeaux lay fàttali. ca 2007. laa ilaha illallah am di nogoy. tëb na ñetti tëb. laa ilaha illallah. moog caatu Samba Diaw ca Jaxaaw. Arbi baa ngi am di nogoy à caatu Samba Diaw à gauche. laa ilaha illallah nuyu naa ñëpp. léegi ku lamba ji. waaw mu mag ma wala. te jarbaatam sax day jarbaatam. ab jarbaatam la. mais est-ce que lamba ji mbirum day nekk kit wala kit wala duubul kit wala duubul la ñuy laaj. Baye Fall bu mag a mag la. waaw kooku kooku turam na si ñoom ñoom ngay Fall la mu Serigne Assane Fall nar Kawsara. Eh, ñu koy si Serigne Talla Ndiaye. maa lox loolu waa Kawsara Fall nuyu nañ leen Madina Fall. léegi ma dem dañ taali. day daal di dem dañ taali. maa lax loolu lu waay doon jaay léegi mu lamb nuyu nañu waa Thiès di nuyu Serigne Cheikh Ngounda Fall e nuyu nañu waa Ceneba nuyu waa nuyu Serigne Moussa Fall nuyu nañu waa xombal lamb ji mbaar teelam jàppante e am dina koy nga topp ca xeex xeex e, am dina koy nga ko bëgg a dóor mu ngi koy gërbal e caatu Samba Diaw foo jëm caat taxawal caatu Samba Diaw taxawal am dang koy dóor am di jàpp na ko am di mbaa daanu e xeex rëpp am da caatu Samba am di defal ndànk am di teengaa teey Modou Anta la andi. am na daa a tey parce que blessure lay ah, ah, dafa war a tey de. arbitre xamul blessure de. daa war a tey tey am di. lambi revanche des koy gérer Babacar ay wax ak yow. waaw maa xel laa dem ci buur buur. buur buur ma ci pootum buur. waaw weer ba mu woo mu taw ca kawam. mu taw ca na ko yar la yërëm moo ko waye. la ilaha illallah tekk mu sotti ko mu bañ jogaat nañu taxaw combat baa ngi da ko yëkkati ca xabal lu muy def ak moom am deg saatu Samba Diaw waaye lii saf na est-ce que am amoon na fa am daa ma sente ko de ca xabal daan na ko oh! la waxoon daan na ko jëli bu rëy la waxoon daan na ko jëli bu rëy am ma lii am di nogoy rof ca xabal dàq daan na ko jëli ba jël ba mu ko daane lay toppal ma am dina oh, loolu laay laaj. loolu laay laaj ma ko. Oh, eh, daanu rus am pola. walaay lamba lamba daanu rus. ku daanu ñu jël si. lëng lañ ko daanu yasi yasi Talla yasi. eh am dina ko ya daanu yasi. waay jógal waay am di jógal caatu Samba Dia way daan. caat tee ngaa jóg caat dina dooni taaw caat bés dina ñëw nga doon taaw caat wala taaw ee eh, caatoo caat xaritu yaay ja caat tee ngaa jóg caat